yàlla ne doomu aadama rëbb nañ ko ndaw ku mën a weddi xutila rëbb nañ firee ko noonu al insaanu doomu aadama maa kafaroo ak tat ak weddi de <clears throat> yàlla ko bind doomu aadama bi taxaw bu fettarlu di weddi yàlla ci lan la ko yàlla bindee mën doomu aadama dafa bëgg wax ne moo bind boppam déedéet ndax dafa bëgg wax ne dafa jékki-jékki xam jigéewut fenn déedéet moom la yàlla war a am xuliqoo min xëy shay na mumul xaaliquna doomu aadama lu mu gàtt-gàtt xel rek xam ne bindul boppam lu mu gàtt-gàtt xel xam ne gërgëru rek nga xam noonu te jigéewut fenn <coughs> kon nag ki ko bind kan la ko di boromam de waaw ci na la ko bindee nag min ay seen ci wan mbir xalaqoo la ko bindee ba muy rëylu minut fatin ci toq mën yu xalaqoo la ko bindee doomu aadama bi di rëylu nii ci toq mën yu su salte waaw ci la ko yàlla bindee de jël toq mën nii boo xam ne boo ko dégg nga faare ak sa baaraam sax dégg nga mu daal di seey bu la taqee nga bëgg koo raxas <laughs> ndax seexlu koog tirim gë de yàlla bindee ca nga mag jël toq mën bi def ko muy lu mu deret jël lu mu deret ba génn ci suux ak yax ak cër bind la bind bu yéeme bu organisé wu de bët waaw nopp gémmañ waaw bakkan ak biir tànk wutal la tuurukaay ndox waaw ak demukaay duus wutal laay loxo may lam xel <laughs> saa su nekk rek mu di la yokk xam-xam de nga dem ba màgg nag xam kàttan xam doole joo xam ne lépp yàlla la ko jox nga di ko koo xeexee nag kooko kooko mën a wedd yàlla de buur na mi nut fatin ci doq mën u xalaxoo la ko bind faqadarahu tam dogal ay mbiram lépp <laughs> yow doomu aadama sa mbir yëpp yàllaa ko dogal gannaaw bu mu la bindee ba pare dogal naa ne ku weex ngay nekk wala ku ñuul wala ku xonq boo juddoo noonu rek lay mel dangay ngay njool wala da ngay gàtt yàlla dogal ko sa loxo yi ni muy bindoo sa cër yi ni muy bindoo kanam gi ni muy mel dafay sewam dafay rëy <clears throat> bakkan bi dafay guddam day tàppandaar wala day jug waa yooyu yëpp yàlla dogal ko rek laa wax de ci yow ba mu dogalee sa bind noonu la dogalee sa wërsëg waxtu wu nekk li nga am li nga war a jëriñoo ci wërsëg waaw yàlla dogal ko dogal sab diir ñaata fan ngay dund dogal say jëf dogal ba dogal aljana nga jëm wala safara nga jëm buur bu màgg boobu nga xam ne moom rek mën nga wax ne mooy def lépp noo mën a jikkee ba di ko weddi rek laa wax de doomu aadama bu xalaatee dina gis ne léppam dogal la moom du dara ci mbiri de bu xalaatee dana gis ne ndeke yëpp yàlla rek moo koy def ana kon fu mu mën a jaar bu weddi borom boobu borom bi nga xam ne moo la bind ci lim la bindee to xam man niyu borom bi nga xam ne sa mbir moo ko dogal <coughs> loo xam moom la loo ñàkk moom la boo dundee moom la boo dee moom la lu nekk nag waxtu mu ko dogaloon rek lay xamee mënoo cee soppi dara manax borom boobu war nga koo weddi su ma yës saroo topp mu yombalal ko asabila yoon wa gannaaw ba mu la bind yow yombalal la yoonu lam dawal ci yow yëpp lam la njëkk yombalal bokk na ca waaw nga man di dund si sa biiru yaay yaa ngi ci biir yaay waaye lu sa yaay lekk rek dégg nga mu daal di ñëw ci yow nga dund ca loolu yàlla defal na la ko yow doomu aadama de gannaaw loolu nag mu yombalal la yoonu génn ci biir yaay dégg nga génn xam nga ne kanamam jigéen dégg nga ab euh, yaram lem mu ca kooku kéemtaane yàlla ànd na ci rek laa wax de waaye lu ndaw loolu dëgg-dëgg waaw doomu aadama bu ci génne daal kaw te fekk yàlla xaj na ca yàlla jaarale la foofu mu yomb lool nga daal di génn ci jàmm ak salaam bu ko defee nag yëngatu yam dogaloon ci yow moom la lay yombaloon moom ngay def waaw wax yam dogaloon ci yow jëf yam dogaloon ci yow wërsëgum dogaloon ci yow lépp daal di la yomb nga daal di ko xam de laaj yi daf lay delluwaat sa borom rek de war na lépp moom waaye doo ci dara ana kon nag nga koy mën a weddee de su ma amaatoo topp mu rey ko fa akbaroo mu denc ko rey ko ba pare defal ko bàmmeel mu jël ko muy boromi bàmmeel su muy saa saa saa yu ko soobee nag ancharo mu daal di ko dekkil de waaw yàlla bind yow doomu ma si toq ma niyu dogal sa mbir yëpp yombalal la lam ci yow daal di la rey daal gannaaw loolu waxtu mu bëgg a dekkil jaami dekkil de du saa yu neexee daal dekk déedéet su neexee yàlla daal ci lay dekk di am waaye dekk moom foo mu am de waaw waaye waxtu wi ko yàlla bëggee ak ni ko yàlla soobee noonu rek lay amee kon yow say xaal yëpp mooy ci jamono bañ lay bind ba jamono ba ngay dekkee doo ci dara lépp ci coobare yàlla rek la ana noo mën a weddee borom bu màgg boobu rek laa waxee soo tu abasa <coughs> wa wax na salla yàlla doole ko allah alayhi salaam wa salaam doole ko mos a yonent bi nee na yaa yoon naasu e yéen nit ñi inna rabbakum ma naka seen borom waahidun benn la wa inna abaakum naka seen baay waahidun benn la alaa yégal laa fadla déedéet ngeen li arab yi ñeel ka jug arab alaa ajamiin ci ka jug ajam wala li ajamiin déedéet ñeel ka jug ajam alaa arabiin ci ka jug arab wala li ahmara déedéet ñeel ku xonq benn ngeen alaa aswara ci ku ñuul wala li aswara déedéet ñeel ku ñuul benn ngeen alaa ahmara ci ku xonq illaa bi taqwa lu mooy ci ragal yàlla de buur ne yéen nit ñi yéen ñëpp benn borom ngeen am wari yàlla comme ni nga xamee ne benn baay ngeen xam muy waajur yi leen jur kenn rek la mën a doon seen borom it kenn rek la mën a doon de arab gënut kudul arab ajam mooy kudul arab waaye kudul arab it gënu gënul arab de ku xonq gënul ku ñuul ku ñuul gënul ku xonq illa bi taqwa lu mooy ci ragal yàlla kii gën ci yéen daal mooy ki gën a ragal yàlla inna akramakum nag ki gën tedd fa yéen indallaahi fa yàlla atqaakum mooy ki gën ragal yàlla ci yéen de buur ne gën ragal yàlla ci yéen daal moo gën foofu la nattukaay bi nekk ragal yàlla nag mooy jëfee ndigal yàlla mi bind bàyyi tereem ku raw ci loolu daal moo la gën rawaaw solo nag al zamul buxle ngaññi ak nay xaala wana laa taala kawena waman yuqaka fegal nañ ko suxa nafsi xiir ak bakkanam foofu laay ku ñooñu léegi hum ñoom al muflihoon ñoo daway texañe de a soxu mooy xiit ci dara bëgg ko lool ba nga xam ne xàmmeetoo nañ koy wutee daga naam daganut lañ cee def woo jaadu na wala jaaduwut yow daal noo ma def ba xam ko rek baax na même booy génn ci diini sax dang jaral na ko na nga xam loolu loolu moo di suxu de waaw albuxlu nay nag mooy nga xam ba pare bañ a joxe kon soxu moo jiitu nay muy xiir wut wutin wu ñaaw faale woo ci dara de ndax bëgg gi ko bëgg dafa dafa dafa jéggi dayo nay nag mooy gannaaw boo wutee ba am ko nag nga xiir ci lool bañ koo joxe rek laa wax de kon soxu mooy jur nay soxu mooy ndeyu nay mooy xiir bëgg dara ba ëpp boo ko defee rek wutin wo dana ñaaw te bis boo ko xamee boo ko wutee ba am ko doom ji muy jur moom xiir googu mooy dootoo si joxeete dara nga daal di nay de ñoom ñaar bokkuñ suuf nag moo bon man nañ ko soxal naf si xiir ak bakkanam foofu laay ko ñooñu liggéeyam ñoom alamu fi woon ñooñu texee de ki nga xam ne du topp bakkanam mukk ci lu naqar yàlla moom lu mu bëgg-bëgg dara lu jaadoo lay def bu jaadoo daal mu def bu jaadoo du ko wut jaral na ko ñàkk ko sax ak lu ko bëgg-bëgg kooku yàlla fegal na ko ki rek bakkanam de ñooñu nag ñooy ñooy ñu texe waaye képp koo gis mu topp bakkanam nga xam ne li bëgg daal na ko am rek nu mu ko mën a xamee baax na dagan naam daganul yoonam nekkul ci moom daal na ko am rek kooku ñaareel du texe de soosu taxaabun kooku saaru taxaabun la ñëw de waxaala wax na rasulullah yonent yàlla bi salla yàlla doolu xew allah alayhi wa sallam doolu ko musal yonentu nee na xaslataani ñaari jikko laa yajtamiaani duñ fii muminin ci ku gëm yàlla buxru mooy nay wasuur xuluf yi ak bon jikko ñaari jikko yi du dajee mukk ci ku gëm yàlla mooy nay ay ak jikko ju bon ñu ngi ci beneen bunt mooy ngaan ñi nay nay ak ñaaw jikko koo xam ne nii kum jëflanteeg lor la jikko ju ñaaw ju bon la yore boole ci nag nay du joxe dara ñaari jikko yooyu moom du dajee mukk ci ku gëm yàlla de kooku Tirmidi solo na ko julli daal bu nayee dafay dafay mën a maslaa mën a jëflante ñëpp waaye loxo bi dafay dagg moom du joxe dara moom wala daal moom mu rafet jikko lool dégg nga maanaam daal jikko ji moom foofu mu rafet mu nay wala wala boog mu tabee waaye jikko ji ñaaw mën naa joxe gaa waaye nag ak mën a loore de waaye boole na ak bon jikko kooku moom ko foo ko fekk rek xamal ne kooku gëmut rawaa solo ko ko tirmidi tirmidi de wax nu jëlee nañ ci yonent bi salla allahu alayhi wa sallam doori ko musal yonent bi nee na inna laa naka yàlla yubxidu dana bañ albaxiil aji nay fi xayaati ci dundam asaqiya tabe inda mawti ci koo xam ne ba muy dund loxo mi dafa dagg këtt du joxe dara lu mu xam rek daal di ko téye du bokk kenn dara bu dee nag xalalam yëpp ñu génn ko séddale ko xam nga dee moom force ku nga tabe ndax ñu miraas xalal mënoo ci dara koo xam ne nii xalalam dañ koy joxe bu dee waaye ba muy dund nanguta joxe dara kooku yàlla daf koy jëppile ku tabewut booy dund it boo dee tabe ndax boo dee moom xale ji foofu ñu séddoo ko kooku force la kon nag nay ci dund tabe ci dee yàlla bañ na ko zakraw tudd na ko saahibul firda fardusi moo tudd hadis boobu de ma xaala naa leen wax naa moo jur nay muy bëgg dara bëgg dara ba taqali ko sa sogo yow na ko am rek noo ko mën a xamee baax na. yonent moytu leen loolu fay noo nag loolu ahlaka moo alak man kaa nag ka nekkoon na qablakum njëkk leen ñeneen jiitu woon xiir gu ëpp moo leen xalak ndax lan ndax boo xiree ci dara bu jëree rey nga rey ko bu jëree noonoo ko pour xam ko da nga ko noonoo bu jëree liggéey ko pour xam ko da ko def bu jëree bañ ko ngir xam ko da ko def boo xiree ci dara sax ku la ko dara gàllankoor ñaareel nga bañ ko dégg nga même bu la dara rek waaye moom sa karam daal tax mënoo yegg fa nga jëm da ko mujj bañ kon xiir xiir googu mooy indi bañante mooy indi noonoo de mooy indi guerre waaw te loolu fu mu xam rek dégg nga xalkaane fi waaye jam du fa am ndax kenn ku nekk dafay fexeel moromam de ndax bëgg hegg ci lam lam bëgg hegg moo tax mooy tuddeen xiir mooy bëgg ba tàqalikoog sa sogoo loolu moo xalak ñu jiitu de rawaaw soloona ko muslim bunt booboo nga woowu beneen bunt bi mooy am lu digle bi xusnul xuluqi ci rafet jikko bunt bi dafay digle jikko ju rafet julit lu mu gàtt gàtt moom war naa eh, yaatal jikkoom ci ñëpp xaala wan allah àlla taala kawe na way nekk naka yow laa laa xuluqin yaa ngi si jikko azim bi aji màgg de yàlla na yonent jikko ju màgg nga yore jikko ju rafet maanaam laa laa xuluqin yaa ngi si jikko azim bi aji màgg yonent yàlla na yonent bi eh, màgg jikko yaa rafet jikko kon yàlla tagg na jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de taggut jikko yi keneen nag loolu mooy tekk ne yaa gën a rafet ñëpp jikko loolu daal moo di wax ji jikkoom kenn amu moo tax yàlla tagg jikkoom de tuddee ko lu màgg sootu xalam loolu la yàlla taggee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon ku bëggati tagg rek fa yàlla fexeel rawante ci jikko yonentu boobu noo ci mel rek noonu la màggaay mel noonu la sa tagg di mel fa yàlla de yàlla tagg na jikko yonent bi ku jikko yonent feeñ ci yow rek xamal yàlla taggaal na la kon loolu loolu di wax taggee jikko yonent bi mooy war ku jikko yonent feeñ ci yow rek taggaal na la suratul qalam wa xaala wax naa rasulullah yonent yàlla bi salla yàlla doole xew allah alayhi du ngeen dajale annaas na bi am waalikum seen xalal nekkal milliardaire ëpp la xalal ci àddina bi waaye mënoo jox ñëpp ba mu daj loo bëri bëri xalal amaana koñ ba nga nekk rek boo séddale woon ñooñ koñ yëpp kenn ku nekk lu ko doy nga far ñàkk yow loolu xamati dara rawatina réew ma nag waaw da nga président sax di yore ay milliards ba léegi xajaay xajooy ñi mënu koo faj moo tax dajal nit ñëpp si sa xalal mënu nekk mën ngaa jox ñii daal. ñële moom doo leen jox ñii mën nañ see xaj ñeneen duñ sa xaj waaye alal joo xam ne daj nañ ñëpp kooku mënu nekk de moom la yonentu xam nag moo tax muy nekkoon nag yéen lan tasaw du ngeen dajal anaas nañu bi am waalekum seen alal walakin waaye nag yeesam moom dana dajal nañu min kum seen bastul waji tàllal kanam wóor na xuliq ak rafet jikko li mën a daj ñëpp nag mooy kanam gu lewet gu tàllalu yaatu ku ñëw nga accueillir ko bu baax fonk ko lool jox ko cëram jëflante nit ñi bu rafet mooy nooy rafet jikko loolu daal moom man ngeen cee man man mën naa daj de gis nga kon fexeel yow ba bul bul setti kenn nit koy jëflante rek na sa kanam gi ubbeeku na jëflante bi nooy na jikko ji rafet jikko ji rafet nag mooy la nga bëgg mu dee mu ko def daal yow dee ko ko def na nga bëgg mu jëflante ak yow dee ko jëflante ak moom loolu moo di jikko ji rafet de kon fexe ba sa xalal daj ñëpp kooku moo mënul nekk waaye nga fexe ba sa kanam nga ubbeeku ñëpp ñeme la la nga bëgg ñu jëflante kooku yow nga di ko jëflante ak nit ñi kooku moom mën naa nekk noonu rek ngeen mën a dajale nit ñi ci ci may may gu daj ñëpp daal mooy kanam gu tàllu ak jikko ju rafet de waaw kooku mën nga koo jëflante ku ne kooku jëflante wut rek da ngaa rafetlu rek waaye war naa mën nekk ak ñëpp de alal moom jox ko ñëpp mënu nekk kon yaatalal sa kanam na jikko ji rafet bu joxe jotee nag koo xam nga jox. koo mën a jox jox koo mën a jox nag nga wax ko wax ju rafet jëflante moom jëflante bu rafet bu meree nag affaire am la waaye nag yow moom def nga nga war a def rawa soonu kat bazaar waa bu yàlla ak bu yàlla fadilatu aklil xalaal yi nga ne lu lekk lu dagan wa mazamatu aklil xaraam ak nga ñi lekk lu xaraam moo di bunt bi ci topp xaala wax na la yàlla taala kawe na tayibaati ci way teey wax moonu jëf leen saalihan jëf ji aji nii nag mën naa li mooy xam la mu bi maa tàmbaloon ci la ngeen de yàlla na lekk leen ci te ngeen def lu baax moo tax kuy lekk lu dagan dafay mën a jëf lu baax waaye kuy lekk lu xaraam jëf lu baax daf koy jëfe lekk leen yu tee yi ngeen jëf lu baax buur ne man xam naa li ngeen def de lépp lu ngeen def nag xam naa ko te danaa ko fay soo du moom yoona kon yàlla digal na lekk lu dagan lu teey nag man ko fee lu dagan te baax si yaram loolu mooy lu teey lu dagan te baax ci yaram loo xam ne ni dagan na waaye boo ko lekkee mu jox la feebar kooku baaxul sa yaram bul ko lekk loo xam ne ni dégg nga baax na ci yaram waaye daganut waaw kooku ko lekk kon lu dagan daal te baax ci yaram loolu di tee waxuma lu neex nag lu dagan te baax ci yaram de lekk leen loolu suñu ko defee mën def lu baax waaye booy lekk lu xaraam dafay diisal soo roxo doo mën jaamu sa borom de boo lekk lu baaxul sa yaram mu diisal sa jëmm ngay feebar ba dootoo mën a defati yu baax yu bëri yi nga doon def de kon lekk lu tey daal mooy tax nga mën a def lu baax bàyyil xel wax ji boo lekkee lu xaraam lam lay mooy roxu diis doo mën a jaamu sa borom ndax bakkaar yu bëri boo lekkee loo xam ne ni nag dagan na waaye baaxul sa yaram moo indil la feebar yaram bu diis ba jaamu yàlla yu bëri dootoo ko mënati rek de ndax la nga lekk teewut waaye boo lekkee lu tey mooy lu dagan te baax ci yaram dana mën a def lu baax ndax yaram bi dana sawar roxo gi dana sawar te nag na ngeen xam ne lu ngeen def yàlla xam na ko dana ko fayle ndem lekkul tey mooy tax a jëf kon góorgóorlu leen ci lekkul tey wax xaala wax na taala yàlla mu koy wala taakulu bu leen lekk am waalakum alal seen baynakum seen diggante bil baatili ci lu xaraam bu leen lekk seen alal seen alal yi morom ci jaaxaan maanaam ci lu xaraam ëpp nit ki doole lekk xalalam nax ko jël xalalam fexe ba jël xàllam ci lu dëgg ci ay trian ki pexe yàlla nee na aaye naa ko bu leen ko def suratul baqara war a waa nett la ibnu masud la dee yàlla gërëm laa waraanu ci moom ani nabi mu jëlee ci yonent bi sala yàlla doo xewal laa waraanu ci moom wasalam doolu ko musal ibnu masud jëlee na ci yonentu andoona yonentu xaala wax ne ne talabul xalaali sàkkulu dagan faridatun kooku farata la ala kulli muslimin ci bépp julit julit bu nekk rek war naa sàkkulu dagan di ko dundee rek laa wax de waaw kon dem liggéey yi kooku farata la farata ci jullit bu nekk rek de mel ne Ihya mu ngi jugee ci Ihya wa xeeru ak lu dul Ihya xadis bi xaala wana salyam dol xew la alaysa moom wasalm dol mosa yonut nee bépp yàpp nabata màggee na min xaraamin ci ju xaraam fa naaru safara moo gën a yey bii ci moom yàpp woo xam ne la ko tax a màgg tax ko dund mooy lekk lu xaraam yàpp woowu safara moo di moo di mooy cëram de safara ci gën a yey mooy safara rek la jëm kon fexeel bay dundee lu dagan waaye booy dundee lu xaraam sawar rek nga jëm loolu mooy wane kuy dundee lu du mën a def lu baax te bu deful lu baax daal di dugg safara loolu hadis bi dafa firi laaya de yàpp woo xam ne lu xaraam lay lekk di dund na ko wóor ne ko yàpp woo moom yàlla def dana ko lakk safara safara mooy di cëram ndax dana tayal du mën a def lu baax bakkaar yi di yokk ba dee ci kéeféer wala ci bakkaar yi lu jeex yàlla lakk kook safara ndax alal ju xaram jooju mu doon dundee de dégg nga kon del fàgg lu dagan di ko dundee wa xaala wax na xaala wax naa yàlla nekk si moom asalaatu xew wasalaam ak mucc yonent ne rubba ashansa bëri naa ji cuxur bopp ak bara ku pënd bopp mu sari din kaa ji sori fi asfaari ci tukki tukki mu sori lay lay tukki ma tax moom ñamam xaraamoon loo xaraam la wa man basoo yéreem xaraamun lu xaraam la wa xusiya te dundalee nañ ko bil xaraami ci lu alal ju xaraam yar foo ma nga yëkkati day ñaar loxoom fa yaqulu mu naan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yow sama faa naa yustajaabu kawteef naka la ñu nangu lee di daal ñeel koog de kooku yàlla du ko nangul ñaan bu sax yàlla nangul ko ñaan mooy la lekk dafa xaraam la muy naan ko dundalee lañ ko dundalee sax alal la dégg nga moo lekk lu teey dafay jeexit ci yaram ku yàlla bëgg daf lay sàmm jox la jur yu baax yuy fàgg lu dagan di la jox nga di ko lekk dégg nga waaye koo xam ne ni waajur yam yore dañoo sàggan xalal ju xaraam jëfandikoo ci loolu lañ ko dundalee xam nga ne xale bi bu màggee ci loolu la yaru ci wut lu moo tax yonent ne lañ ko dundalee dafa xaraam moom it ba mu màggee rek mu xaw yoonu yoon jur ya di lekk lu xaraam di sol lu xaraam ndax ci loolu la yaroo ci loon la màggee kooku sawaraay cëram de te bu ñaanee yàlla lum ña lum loru loru na nekk ci tukku na tukki na cuxur na xiif na jaaxale na sonn yaa rabbi yaa rabbi yàlla du ko faal de ndax buur na ne faa naa sa sajaab noonu lañu nangu leen daal ka ñel ko rawaaw soo na ko muslim muslim du waajur yi fàgg lu xaraam jox la yow doom ji mënoo ci dara lu rek moo la xalaat waaye déedéet da nga yaru ci yaru waajur yooyu yow it di def boo màggee bu ko defee mel ni ñoom rek laa wax de waaye nag boo tuubee dégg nga ba seen jooju alal ju bon jooju dundee woo ca dégg nga donnoo ko ndax xam nga ne lii daganut jaaduwut nga bàyyi leen ko génn ci alal ji moom set wecc yow di def lu dagan di fàgguru dagan kooku yàlla mën na ko jégal de dégg nga kooku moom aljana mën naa nekk cëram waaye daal sa waajur fàggulu xaraam dundal la ca juuju gi fa yow nga continuer halal ju haram jooju di ca dund wala liggéey yu haram yooyu nga continuer ko donn ko xam nga ne yaa ñoo nga de loolu waral nit ki dugg safara moo tax waaye na dimbale doom ja rawaaw solo na ko muslim imaam muslim rek laa wax nuurul islam wastatantuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh